wallaay la <laughs> en tout cas ma ne ma ne bu lëj hmm. man man eggul ci mën koo ëcc hmm. Hmm. may nag loolu dégguñu ko de waaw te loolu yàlla yàlla buñ dematoon foofu poqi xamoo poqi poqi oh, xamuñu poqi boo demee marché ci ñuy jaay ñuy jaay ay péri pémeek ah. ay ah, baleek ay yooyu boo leen laajee poqi mooy benn genre lëñ la bu nooy mhm. moom la ñuy raw ñaare di ko defee ay façon digg ak ay mhm. yenn ah, façon yooyu dafa dafa dafa comme coton la mel waaw su lëjee nag mhm. ah, euh, euh, dafay naqaree defaraat bam ah, bam bam kiyaat ma ne moo tax ma ne man man eggul ci man koo ëcc ëcc mooy fexe ba mu nekkat buum gi buum gi noonu. Mm-hmm. d'accord d'accord Mbaye amati na solo leçon ngi noonu na gars yi bind te déglu <laughs> donc comme ni ma ko waxee rek daanaka doo xam fooy commencer ci sujet yi nga xam ne ni moom moo nekk ci euh, toile bi mm-hmm. waaye nañu ko commencer ak euh, vague d'arrestation yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax muy am Euh, ci biir euh, Sénégal ndax bu ñu nee génne nañu ñii euh, comme ni ñu ko waxee rek dégg naa aw Diom Ndiaye à chaque fois mu koy wax que Sénégal jamono ji daanaka dafa mel ni lido mhm. boo génnee ñu jàpp la tant amoo six doo génn maanaam ah, bu ñu la jàppee six mois ferme rek wala booy bëgg ak six mois ñu xam ne daanaka toppee wuñ la dara c'est vrai toppee la dara mhm. te six mois yi boo ko defee daanaka di nga jàkkaarloo juge bi mhm. ñu génne la daa di am luñ toftal sa ndord loo xam ne nii dañ naan la dangaa war a noppi wala xupp la ba nga ragal ak ñoom seen donc comme ni ñu ko xamee ni kii barki démb bëggoon nañ koo indi ci toile bi démb uh-huh. barki démb euh, mu di euh, ñaari libération yi nga xam ne ni neex na ñu bari ci askanu Sénégal mu di euh, Ousmane Diagne uh-huh. mi nga xam ne libéré nañu ko ni kii barki démb uh-huh. moom ak Papito Kara mi nga xam ne bàyyi nañ leen te ñu toftal ci nag daanaka gàddu seen ndodd li nga xam ne ni moom moo di euh, liberté provisoire euh, ni mhm. ko ñu bari bari ci sénégalais yi amee waaye sous contrôle judiciaire maanaam tënk nañ leen tënk goo xam ne ni daal euh, lu bari bari ci seen dossier mhm. waruñu ca àdduwaay tam waratu waratuñoo def benn infraction boo xam ne ni bu ñu bu ñu mooyee rek dinañ leen yóbbuwaat ci biir kaso bi mhm. noonu lañu koy noon lañu koy defee noon lañu koy utiliser moom daanaka Ousmane Diagne comme ni ma ko waxee gis nga ragal du jéggiraay te it ndox du bàyyi yoonam xaqataay reetaan la njëkk a publier démb moom la njëkk a publier démb moo tax ma ne leen bu ñu jàppee nit ñi yaakaar ne dañ leen di tëj ngir xoqatal leen ngir xupp leen mhm. daanaka ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di gën a may fit mhm. tey gis nga koo fi gis mu am fit nga ne eh, defu la waxu la sàccul fenul mhm. euh, deful lu bon lu ñuy tere ci réew mi nga jël ko ndax mbirum politique ne ko yomb ci kaso bi da nga koo may fit mhm. danga nga koo may fit combat ba mu doon combattre tey la ko gën a mën a combattre te eh, ba nga demee ba nga xam ne ni mën a too koo euh, denc ci kaso bi génne ko mhm. tey ji mi ngi amaat liberté am la mu mënoon tey da koy gën a mën te da ciy ne donc ñu amaat beneen ci métit boo xam ne nii ni ki démb la am ndax nit dof ku ne xam ne ne euh, sûreté urbaine da ko jël si ni ki démb ca këram yóbbu ko nag ci fi nga xam ne nii moom moo di ci police bu rëbës daanaka fa la ñu ko euh, téye en garde à vue démb gis nañu euh, metre Khoureyssi Ba di kenn ci avocat am daal di addu ci mbir mi euh, daal ne rek daal dinañu koy téye en garde à vue daanaka ñi fa nekkoon ak moom nekk nañ fa bu guddi mais mm. taxul ñu bàyyi ko tey jii nag la ñu ko fas yéene defeere mm. ci kanamu procureur xam naa ni incha allahu rabbi tey jii la ñu ko nar a yóbbu ca ndungu siin rek mais ñi nga xam ne nii dem nañ ci moom ak ñi ko jege ñëpp la ñu seede benn la moom mooy mm. dafa gën a déterminer mm-hmm. ci li nga xam ne ni moom mooy di ci ay mbiram ay waxam ak yeneen ak yeneen daanaka nekk na koo xam ne nii aussi euh, du euh, ragal du ragal te wane na ko. Mhm. Euh, te it fi ñuy waxee rek à chaque fois ñoom internautes yi dañuy jël li nga xam ne moom moo di mbirum photo yeeg ñoom seen di ko partagé nañu ko defee woon ci Ousmane Diagne Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xàkk Papito Kara def ko ci Diop Taïf ak ñeneen ak ñeneen firi nit ki. Mhm. def nañu firi nit dof te ñu ngi koy taxawu ci nu ñu ko gën a sentiré mais moom daal ñi ko jege nee nañu tiitu raful nee na dafay. Euh, dafa dafa daal di gën a dëggal li nga xam ne moom moo ko def moom moo ko wax mhm. mais nag li ñu koy toppee euh, charge yi ñu ko yi ñu ko teg dafa daal di bari bari mhm. ba daal di tiital waaye itam jaaxal ñu bari bari ci ñi nga xam ne nii euh, ñoom ñooy ay jege ñaaleem ndax jóge na li ñu koy toppee jóge ci ab live boo xam ne da ko def mhm. muy jeudi bii ñu weesu ci ngoon la ko def daal di rek wane ak naqaram waaye itam ak tiisam yërëm yërëm yërmandeem ci askanu Sénégal ak ñoom seen xëy na na mu ko defee moom moo leen neexul waaye itam man euh, damay ñëw rek ci sama xalaat bi may bi nga xam ne ni xalaat naa ko ci mooy mhm. euh, euh, dañoo jëm ci ñoom forfaiture dañuy jëm ci loo xam ne nii tey jii xëy na seen gëneel la mhm. ci loolu la ñu mën a ci loolu la ñuy la ñuy dem seen terrain la mhm. muy politique bi ak éliminer seen seen adversaire te euh, comme dafa am lu fi amoon mhm. en 2021 te nee nañ la woon dafa woon ni euh, te bëgguñu kenn koo xam ne nii da ngay chauffer euh, la jeunesse sénégalaise bi nga xam ne nii yaakaar nañu ne xëy na ñoom ñoo topp kookee bokk na ci ni dof mi nga xam ne nii am na dayo bu am ci ñoom da leen di influencer te it kàddoom mën naa yëkki mën naa yëkkatiku dem ba ci xale yi am lu leen kii ndax ku gis euh, vidéo bu keroog bi xam ne mhm. kat waaw xadar la waxee mhm. xam ne xolam la la la la yëkki mhm. daal di koy wane li nekk ci xolam ak ñoom seen euh, donc euh, ñu ne xaar ñu profité dem denc ko ci loolee man ci sama xalaat laa waxee ci loolee lañu la ñu profité ngir daal di koy mën a nëbb jant bi mu mel ni dafa nekk ci yeneen vague d'arrestation rek yoo xam ne nii ñu ngi koy nemmeeku ci Sénégal te comme ni ma koy waxee rek kenn muccul daanaka ñun ñëpp ñu ngi en si comme mhm. ni ko ñeneen ñi defee kenn sa tànk mi ngi mi ngi biir biir euh, euh, àllaaxira sa beneen tànk mi ngi biir kaso daanaka ay nit ñu ñu yëlëb lañu rek ñuy dox ci biir Sénégal te képp koo xam ne ni nee nga mucc nga mhm. xamal ne muccoo parce que am na ci ñu bari bari ñoo xam ne ñu ngi toogoon tey euh, nekk ci pegg gi ñuy reetaanee di reetaan tey ji yat bi yat bi dal na leen mhm. il yi nga génn rek ne nangam ku ko weddi laa jël Mimi Touré yaakaar naa ne élection législative ñu génn ku ko ne woon tey ji di nga toog dañ lay génn rapport IGE e. du ko gëm mhm. donc euh, da ngay jàpp ne rek da ngaa janook ñoo xam ne nii euh, amuñu fulla ak fayda ci li ñuy def mhm. daanaka lii seen objectif lépp moom mooy euh, daaneel wala sax nag sëqatal koo xam ne nii tey jii xëy na dafa jóg pour liggéeyal liggéeyal Sénégal dafa mhm. jóg pour liggéeyal askanam te bul wax li nga xam ne moom moo leen naqari mooy bul bokk ak ñoom jëmu bul soo bokkut ñoom jëmukaay ñu teg la yat bi soo bokkee ñoom jëmukaay lu la neex waxal ndax gisuma fi lu fi nit dof wax fi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi wax damay tudd seen tur lu weesu lu fi Coura Macky eh, wax lu fi lu fi lu fi yéesu lu Coura Macky Macky wax mhm. gisuma fi lu yéesu lu fi Bah Diakhaté wax mhm. gisuma fi lu yéesu lu Anita Diop bind eh, ci mhm. page Facebook am ci ñi eh, suturaas doomu aadama ak yeneen ak yeneen gisuma fi lu yées lu fi matti trois pommes ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni ay ñoom mais cette dame là moom Anita Diop elle en fait trop cette xaw ma sa sax laa war a laa mën a wax ah. cette dame elle en ci trop ci wàññ wàññi ma bu ñuy wax euh, bu ñu demee bay jàpp mais en tout cas man arrestation wu nit dof bi je me dis que. Ahmed Suzanne Camara. Ahmed Suzanne Camara waxam. Hmm? ñaata doomu aadama ñoo fi réer. mais waa waa kër ñàkk jàmm waa kër ñàkk jàmm comme di Babacar Touré <laughs> euh, je pense que annoncé nañu. Hmm. jàpp nit dof bien avant ñu koy arrêté. parce que hmm. depuis mu def live am boobu génne li nga xamante ne moo nekkoon ci ci xolam tey jii gis nañ ko ci mel ni Mati Trois Pommes daal di bind ne il va voir. ba mu bindee ne il va laa xam ne que mbir mi du mujjee ni nga xamante ni euh, noonu lañ ko yaakaaree waa imagine benn mati trois pommes en tant que euh, journaliste mhm. nga ne da ngaa tey ji nekkatoo fi yaa ngi def say live mhm. yow yaay dicté léegi mhm. euh, nguurug Sénégal li ñu war a def Euh, Mati trois pommes ay Gabriel Kane ñoom ñoo fi toog ne procès euh, euh, lañ jëm procès force procès am nañu ko mhm. ñu xëy tey jii ñu ne procès mhm. bu ñu gisee benn nit dof daal def benn live daal di wax la ko naqari ñu ne ñu ne ñu ne il va voir ñoom ñëpp ñu jógandoo ci seeni ay ay compte Facebook ak Twitter daal di ne il va voir que ñëpp xam nañ ne yoon dina ko teg loxo mhm. kooku daal di moom commencé parce que ñoom wax nañu ko jógewul ci justice jógewul feneen ñoom wax nañu xam nañ ne mën nañ ko yóbbu ci yoon moom mu daal toog préparé wu. pour mais surtout cette dame là foofu la Sénégal toll. xaw ma trois pommes xaw ma une pomme et Sénégal fii la toll ku yaakaar ne nag dangaa mucc. Mhm. wallaay lanzim yaa ngi nax sa bopp. ku yaakaar ne dangaa toog sa pegg jàpp sa ñam bu neutre. Mhm. neutre boo xam ne amoo ci fulla amoo ci fayda yaa ngi nax sa bopp. Mhm. doo jàpp xale di ko dóor cib néeg ne ko doo yoox mënul nekk. mënoo teg nit ki lu ko naqari ba pare mhm. ne ko doo yooxu mënul nekk mhm. ak façon ba muy yooxoo nag mhm. mais lii ñu vague d'arrestation yi ma fi gis ay nit dem na euh, dem na photo wala dem na euh, filmer rëbës jàpp tëj ci kaso bi ndax lan kooku dafa déterminé wu ci combat bi muy def ay nit dafa reetaan ci ay kii ay jàpp ko tëj ci kaso bi ndax kooku dafa dafa reetaan mi ngi en sursis keneen ak keneen mi ngi en sursis man de naa ko sama bopp te pare nag pour lépp waa kër ñàkk jàmm rek a nekkul en sursis il euh, ñu bàyyi xel jëm benn mbir gis nga Salma y a des gens qui sont beaucoup plus dangereux en silence qu'étant en activité je vous jure mhm. Mhm. am na nit ñu nga xamee ne que cest bu boo leen tëjee la ñuy ëpp danger sax que bu ñu nekkee ci ci ci ci ci ci ci mbedd mhm. parce que maanaam soo leen tëjee tu es en train de tu neutraliser en tout cas benn énergie boo xamee ne que c'est-à-dire moment où ñoom ñu bañ ko gis ci la ñeneen di copier waat ci loolu muy def pour mën a taxawaat gën a amaat amaat doole mhm. c'est très dangereux tey que l'on s'acharne sur des activistes dans mhm. un pays c'est très dangereux et activiste ci boppam moom la yàlla may maanaam benn bayre boo xamee ne mhm. il suffit tey mu mu mu koset aliment ci benn mbir rek foofu noonu par force dafay jàpp parce que donc li muy demee conviction la ak état d'esprit boo xamee ne que maanaam en fait daf koy gëm ba day masse automatiquement waaye euh, a réagi parce que génnee signé loo ko procédure judiciaire mais il a refusé il leur a dit que ngeen delloo ma ci kaso bi ma toog fa dee fa maxe fa sax moo ma gënal may signé procédure judiciaire boo xamante ne leer la leen waroo leen ma woon a jàpp di ngeen ma jàppee du yoon ngeen jàpp ma tëj ma ci kaso bi autant de temps ba pare bëgg ma génnee di ma teg ay daan ay conditions yoo xamante noonu laa war a doxee il a refusé et ba tey signé wu ko gis nga Karim moo xam jëw ñi ñu ni mu ko defee hmm? noonu la ko ñëpp mënee waaw gis nga dama ne ragal du jéggi raay hmm? beneen bi mooy boo fi ragalee ba ñu sànk la ba ñu sànq la ndax fii sànq ne moom moo moom moo fi am mhm. buñ la sànkul ci ak mbind waaw waxaan la loo xam ne ni tey jii tuuma yoo xam ne dañ koy gàll ci sa ndodd mhm. dinañ la sànq euh, ci beneen côté moom mooy dinañ la làq jant bi kenn dootu la dégg kenn dootu la xam wala ñu sànq la maanaam jël sa bakkan ndax ku ne xam na ni Dj euh, Badji mu ngi ci xolli ba tey jii mhm. ñu ngi koy wër gisuñu ko Fulbert Sambou ba nga ci alaxira tey jii ma ngi ca kërug dëgg ga ñun ñu nga kenn xamul lu ko yóbbu ba léegi nii te loolu rek dèjà dafa dafa leeral lu baree baree bare tax na dañuy daal di ñëw ci leneen mu bërki démb euh, mardi gis na Euh, bi ñu ñëwee indi woon nañu euh, euh, livre Cheikh Yérim Seck bi mhm. daal di ciy wax daanaka nag boobu wax nañ ci en tant que mu tudd dippee ko livre bi Macky Sall face à l'histoire mhm. mais yaakaar naa ne Macky Sall face à l'histoire bi da daanaka dafa nuancé li nga xam ne ni moom mooy titre boobu yi nga xam ne moom la bind dañ ciy dikk léegi keroog nag wax nañ ci selon bi ñu gisee les chapitres mhm. chapitre bi ñu ko gisee 1 ba trois daanaka keroog bi ñëwee liir nañu ko. Mhm. mu nekk nag loo xam ne nii euh, euh, dañu ko partagé woon ak moom. Mhm. gis ñu woon contenu bi parce que bi ma paree man euh, le mardi rek bi ñu paree fii émission daanaka ci la livre bi daal di. waaw tas mhm. tas PDF lañu ko la ko nit ñi commencé am nit ñi commencé di ko lire di ko lire contenu bi mais contenu bi ñëpp xam nañ di ca nekk. daanaka boo mënta liir lépp euh, cent 223 pages yu ñu wax boo mënta liir lépp it am na ci ay paragraphes yoo xam ne ni yu bari bari. Mhm. Euh, daanaka liir nga ko. man nag maa waxoon keroog mardi. Mhm. que dafa waxal sénégalais yi. Mhm. moom Cheikh Yérim Seck euh, daanaka bu ñu mënee wax lool waxal nañu ñenn ci sénégalais yi waaye itam dafa daal di nuancer rek ci ni ñu ko mën a waxee. ndaxte dafa xolli góom ba góom set. mu daal di jël boom buy wéral li nga xam ne ni moom mooy boobule mu daal di cay taf. mooy daal di xas président Macky Sall ak njabootam ci position euh, euh, euh, réew mi mhm. waaye itam daal di leen di mel ni ku leen di tagg mhm. maanaam dafa dafa nuancé ci biir livre bi am na lu mu bëggoon a wax la mu bëggoon a wax tax na tey ji mu dal di siiw mu daal di feeñ mhm. waaye yaakaar naa jigu ko parce que boo jógee dal di critiquer président i Sall ci ay gestion ak ñeneen ak ñeneen ci ni nga ko mënee wax ay rapport IGE ak yeneen yeneen ci ni nga ko mënee waaye nga ñëw ki nga xam ne ni moom mooy ministre ciel et terre ni ñu koy waxee Mansour fay nga tagg ko ci wet gi tagg ñeneen ak ñeneen ci wet gi euh, ñu bari nag ci internet yi dañuy wax naan am na ko mu bindal am na ko koy yónni am na benn waay politique bu nekk ci ginnaawam mhm. mais da man man man je man personnellement que euh, moom euh, gisuma ne dañ ko yónni mhm. gisuma ne am na keneen beneen waay politique bu muy bindal lu dul nguur gi lu dul nguur nguur gi parce que Thioro ñu ngi naan xas na ci le président Sall. Mhm. xas na ci la première dame. Mhm. xas na ci Ousmane Sonko xas na ci ñu baax bu baax a baax mais booy xool à vrai dire dafa mel ni kuy xaw a xàllal yoon Amadou Ba. Mhm. ah donc euh, est-ce que ñu ngi naan que c'est pas un livre précommandé. lu bari lañu wala commandité lu bari loolu lañu loolu lañu yaakaar. mais man dama ne man sama xalaat bopp. ñi li ñun ñu yaakaar noonu. man yaakaaruma ko gis nga livre Cheikh Yérim Seck bii. dafa ñëwaat dooleeku ci complot bi. complot Adji Sarr bi ñuy wax waaw Sweet Beauté. ok ci la dooleeku. parce que mënta ñëw ragg euh, président Macky Sall ba mu set te mënul defal Ousmane Sonko livre kese bàyyi président Macky Sall te mënta bañ a génne mbooti président Macky Sall pour nit ñi gëm ko mais dafa këpp yelwaanam xam lu tax mm-hmm. dafa bind livre bi daanaka livre bi euh, euh, euh, jekk taxaw ne mu xal joxe xalaatam ci réew mi mhm. comme ni mu ko war a defee ndax intellectuel la bu toogoon ci coin mhm. mu profité daal di bind livre xëy na livre bi ñëw war a ñor ñii di askanu Sénégal war koo lire mhm. mais dafa dafa dafa fauté moo tax loolu lépp dal di yàq livre bi mooy histoire bi mu nettali te du dëgg man damay seede Moustapha Diop parce que man mës naa toog fii di présenté vendredi Moustapha Diop toog fii Moustapha Diop histoire bi mu wax Moustapha Diop mës naa toog fii ko mës naa toog wax ko di wax démocratie. tolluwaayu loolu xale yëpp dañ koy waxtaanee loolu tolluwaayu tolluwaayu euh, président Macky euh, président Abdoulaye Wade la doon wax. Mhm. ci jamono bi mu fi nekkee ci nguur gi daawul jël benn adversaire politique am. di leen di leen di leen. Euh, xoqatal ci wàllum politique. di mhm. leen xoqatal ci wàllum mës ak yeneen ak mhm. yeneen. jour boobu noonu maa ngi fi toog Moustapha Diop joxe na boobu exemple. donc loolu man jiitu na samay nopp te avant Moustapha Diop di ma ko wax. dégg naa ko feneen ak feneen ndax nopp moom ak borom amul kubéer Euh, donc su ñëwaatee textuellement. même mais est-ce que aussi loolu duñ ci def taxaw seetlu est-ce que c'est pas fait exprès aussi joxe les mauvaises dates pour après ñu dee jéem a andi la bon information wax ko sénégalais. mais dafa juum dafa yaakaar il est il malin et il ne il ne l'est pas. d'accord il n'est pas malin parce que am lu tax. Mm. da ngaa changer lieu ba. personnage yi sax c'est normal nga nga kii ko waaye nga changer lieu ba. Mhm. changer li nga xam ne ni tey jii moom mooy na ko nit ñi gisee woon. scénario bi scénario ba nga changer ko. Mhm. mais mënoo jël même si scénario yow xam nga ne yow dafa jën a jàppale mais nit ñi tam daf ñu jën a jàppaleen. Mhm. te yow am nañu la mag ci réew mi am nañu fekke boobu leen moo tax démb am na benn audio bu fuité. am ku ciy wax. oui. Mm-hmm. Mm-hmm. benn apériste bu ciy wax te audio baa ngi circulé mm-hmm. ci lii bi lan la wax ci ci ci lii bi te boobu ñëpp xamoon nañ ne boobu loolu moo amoon. loolu la nit ñi yëgoon donc su fekkente ne ñun loolu dañ ko yëgoon bien avant. ñu xëy tey jii ñu gën ñu ko leeral Lamine na. ko moo tax dès le début dafa weddi le président. le président Sall. il savait tout. moo tax léegi. léegi yow yow lan nga indiwaat lu bees moo tax gis nga même su bindee lu lu baax ci livre bi. même su bindee luy dëgg ci livre bi euh, fen wi yàq na lépp ñu baal ma ci kàddu bi ñàkk a wax dëgg gi yàq na lépp te it euh, euh, paati ma ñëw gis nga nit xasit du xaste déedéet démb dégg nañu euh, Dame la mu wax dëgg kenn xaaru ko woon mm-hmm. gis nga nit mënoo doon mënoo doon loo xam ne nii xëy na dañ koy laam-laamee mm-hmm. après nga ñëw di xaste te dama ni moom Cheikh Yérim Seck mm-hmm. man maa ko waxaat mënoo xëy un bon jour ngay defanteeg askan wi di defanteeg askan nga xëy yàlla weer la. Mhm. yàlla da koo weer parce que Cheikh Yérim Seck bañ ko jiiñee wàllum mërs viol. Mhm. moom moo taxaw daal di avoué ba ñu condamné ko 3 ans yoo xam ne nii daanaka tëddul lépp ndax dañ ko dañ ko euh, euh, euh, mujjee baal. dëgg la dañ ko gracier nga ñëwaat di dox di dox àdduna di dox ba nga ne ba sa doom loolu dab ko. Mhm. moom intérêt personnel am tamit tax na muy dugg ak a génn. Mhm. ci koo xam ne ni nee nga da ngaa yor xalima gu rafet. da ngaa jàng. Mhm. da war a servir sa nation. Mhm. gisuñu benn combat boo xam ne mës nga koo mënee ngir sa nation. ngay ab journaliste journal ci lan la tënk moom mooy li ñor askanam. mu ciy dox di ci wax te yow kenn mësul gis combat boobu nga mënee ko lu dul sa intérêt personnel euh, lan la fi wax. sama doom ma moo tax may dugg damay lëlu mhm. damay retiré wu la waxoon retiré wul dafa reculé woon retiré ak reculé ñaari moo la yu bokkul mhm. dafa retiré retiré wul woon dafa reculé lan la waxaat sama jabar moo tax ma ñëw kon yow say ah, intérêt waaw loolu la wax nee na jabaram dédicacé na ko agressé ok la ñu agressé yaakaar dafa am ay information ñu agressé ko nee na looloo tax mu xam ne làng gi waru cee génn hmm. moom nag Cheikh Yérim xam nañ ko ci muy tate. ok à chaque fois tate na ci côté politique bi mm-hmm. demul. boobu gis na euh, tey jii ku mel ni Bougane Gueye ku mel ni Ousmane Sonko ñeneen ak ñeneen génn nañ mhm. mu xam ne côté politique bi du dem ñooñu xañ nañu ko ko te boobu Ousmane Sonko mi ngi rampe côté politique mhm. mu daal tate tate demul mu daal di retiré ci la génne woon euh, euh, mouvement boobu de Sénégal 221 des comme ça mhm. donc mënoo mënoo à fois ngay tate personnellement gis nañu ko li ko daloon ak Dadis Camara ak yeneen ak yeneen li mu waxoon ci tuyau da ko beccoon teg ko ci doomu aadama génn daa def benn tweet weddi ko mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen buñ yàggee yow dootoo crédible ci kanamu askan wi te koo xam ne nekkul ko ñuy nawloo mhm. gis naa léegi euh, euh, professeur euh, bi nga xam ne ni moom mooy professeur Ndiagaloum presque da ko écrasé da ko écrasé ci ab tex mhm. dégg nga ñooñu ñoo war a wax Euh, soo yoree sa plume bu rafet yor sa xel mu rafet bul ko jaay mhm. bul bul def euh, mercenariat politique mhm. bul ko jaay da ko def ci lu ñor askan wi dee ko bind ci lu ñor askan wi deel éveiller conscience askan wi te nga ànd ak saw askan mais du rek bu la intéressé yow nga génn def bu la bu la ci sa intérêt bopp bu la eh, eh, eh, boo ci amul intérêt mhm. da ngay dem la lu toog te li la ko liñ ko koy tuddal bari naa ñu jéggal ma nag mais soo fekkee dëgg wala nga mën a contribuer parce que keroog man maa ñëw wax euh, lu ñu war a lu ñu war a lire nag boobu da fekk ne chapitre ñu gis pour man askanu Sénégal parce que fii doo fi nekk naan Bougane doo fi nekk naan euh, Abdourahmane Diouf Ousmane Sonko yeneen ak mhm. yeneen yoruñu gestion wu Sénégal mhm. ay waay politique lañ toog nee di jongante mu mhm. président Macky Sall ak waa këram la ñu dénk pendant dix ans li sénégalais yi di dund lépp ñoom ñoo leen ko teg donc soo waxul ci loolu amoo leneen loo wax loolu mooy dëgg on a vu aussi le livre jar mi ngi jar bu baax a baax et puis dafa def proposition yu am solo ci livre kenn kenn kenn xasu ko ci kenn waxu ko ci la maamam juddoo woon mhm. ci ci ci xare ba loolu mooy dimension bi bi nit ki war a toll intellectuel dimension bi mu war a war a war foofu mu war a war a wane mhm. macha allah comme ni ñu ko waxee rek sunu màggi eh, journalistes yi di leen gërëm di leen sant mënoon nañu li mu def mënoon nañu li mu def mhm. ku déglu Moustapha Diop xam ne dignité la waxee xam ne dignité ragaluñu li ñu wax gis naa léegi Ibrahima Lissa Faye ana leneen ak leneen lan la fi génnewul ci ay investigation ana ay royukaay ci yoon mais yow doo yor sa plume di ko jaay. waroon na après nga bëgg nit ñi nit ñi di la di la di la di la euh, suivre ak di la topp à chaque mhm. fois. donc ñu koy ñu koy ñu koy rappeler rek. Mhm. loolu nit ki moom boo toogul sa place. ñu wax la nan naka waaw naka naka nga war a war a toogee donc dañuy ñëw jeexalee euh, ci euh, dossier wu Sweet Beauty gis naa Pape Ndiaye wax na ci lu yaatu ci côté euh, justice ak mhm. yeneen ak la ci mën a xaar Ousmane Sonko mais ci kanam tuuti 11h30 la Ousmane Sonko war a janoo ak taskatu xibaar yi def ab déclaration comme na mu ko tàmmee di defee ndax yóbbu nañu ko procès ak yeneen ak yeneen te xam naa ne ñu bari bari ñu ngi xaar mu àddu mhm. mais dama ciy sof rek tuuti rek balaa waxtu bi duñu du duñu do di ñu xoj daanaka Euh, dañu euh, li ñuy doon wax tous les jours rek euh, ñii nga xam ne ñoom ñoom la ñu janool ndax gis nañu ñu bari bari ci internet yi daal di koy partagé fépp mais gis nañu ñoom seen troupe ni ñu commencé aussi di jogaat mhm. daanaka dañoo tëddoon di nelaw mais commencé commencé nañ di jógaat léegi ne rek ay publication ngay gis mhm. pare nañu pour pour pour pour ñu bañ a jàpp Ousmane Sonko mhm. pare nañu pour buñ ko naree éliminer politiquement duñu ko mayeek yeneen ak yeneen mais dama ni ah, ñu ngi toog di seetaan te yaakaar naa seetaan bi ci élimination politique la jëm ci diggante Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom la séqal euh, game bi euh, parce que euh, daanaka loo ne ragal nañu ko rek wala loo ne ñemewuñu ko rek ñoom ña nga cay dem ak fit ña nga cay dem ak seen gëdd ña nga cay dem ak courage ba ñu cay demee parce que ragaluñu li ñu li ñuy def comme di wàcc nan la ko waxee waxeeti sax Macky Sall sañul lii sañu lii nee na moom phrase boobu lay bañ loo sañu ko mu def ko mhm. dossier dañu ko euh, euh, bi. Mhm. dañu ko defoon ba pare ci xel ak xol. Mhm. mais nee nañu li ngeen xalaat ak li ngeen gis ak d'après li am lépp certificat médical nee euh, enquête ba dara amu ca. Mhm. témoin yi ku ñëw ne Adji Sarr luy Adji Sarr ci boppam toog avoué boppam nee nañu dossier boobu la ñuy yóbbu procès. perte d'hymen très longtemps. nee nañ dossier boobu la ñuy yóbbu procès merci seulement mm-hmm. dossier boobu nag ñu koy yóbbu procès mooy ñoom fi ñu jëm ragaluñu ko xam nañu fi ñu jëm xam nañu li ñu bëgg mm-hmm. moom mooy éliminer Ousmane Sonko élection présidentielle yi di ñëw mm-hmm. ma ne président Macky Sall agenda politique am pendant quatre ans cinq ans yi moom mooy éliminer Ousmane Sonko agenda politique liggéeyam lépp moom mooy éliminer Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo koy xam moom ak ñooñam moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw wala ñi gëm projet am ñoom ñooy xam ne éliminer ko politiquement Euh, audio bi nga xam ne Mamour Diallo mu ngi ko doon wax ak euh, Adji Sarr mu ngi ko doon wax bu ñu demee procès bu ñu demee procès ñoom ñëpp ku ciy wax da naan bu ñu demee procès ça veut dire que li ñu bëgg procès lañ ko amee dañ ko mën a amee pour qu'il soit inéligible premièrement deuxièmement ñu mën ko jël tegee ko na donc ils sont dans leur logique jàpp nañ procès ñuy xaar rek xëy na date bi nga xamante ci lañ ko fas yéene éliminer politiquement ca luñ gis-gisam ci ci ci ci mbir mi loolu taxoon ñu fal ko à travers bi mu defoon poste bi mu defoon démb xale dañoo dem am na ci ñoo xam ne dañoo dem sëkkatal ko ci Facebook am ba mu ba mu désactiver Facebook am mm-hmm. kooku wanoon na leen départ am dès le début wanoon na leen ne carrément suñ ma ko joxee procès laa leen di yóbbu mm-hmm. donc man euh, li tax ñoom ñu doon ralentir li taxoon ñu doon bàyyi mbir mi di dem mbir mi di dem ba mm-hmm. fii man moo a jaaxal te Pape wax na ko waxaat na ko dama koy appuyer ci loolu bu ñu seetaanee ñoom bu ñu seetaanee nee nañ dañoo am projet dañoo gëm projet bu ñu seen projet bi nee lay tew en tout cas waaw bu ñu fi fàtte Mandela bu ñu fi fàtte maître Abdoulaye Wade ba muy toll ci ndawam. sénégalais yi soxla ko. Mhm. ndax bu ñu wax fii Sénégal lu mu baax keneen ak keneen Mamadou Ba léegi ñu koy wane. ci bi muy mhm. euh, xam ne am na ñu leen gëmoon. mais ak ak ak doyadi. Mhm. ak euh, ñàkk a xam sa gëdd ak yeneen ak yeneen. loo xam ne xale bi mujjee judd sax xam nañ li ça tient ñu lay bu baax a baax ci la jox rendez-vous